Euh, mbokki internet yi topp les arènes ñu ngi leen di bégg bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm yaakaar naa kii ñu leen di wan nag war nañ leen ko moom moo di Mbaye Diop moom mooy président moom mooy président Fass Benno li tax nag ñu dikkaat ci moom tey seet si ko parce que ku ne xam ne aada Fass jamono yi passé ak coow li jàppal bàyyi mi daa mel ni après loolu nag aada ginnaat na def sorti jéggulu balu àq ñu gisaat aada Fass mu dikka ñu ñu dik tey nag Fass aada doon def ay ndogu loolu amee nag ñu jël aada aada def benn déclaration maanaam am na mu waxee ak yu mel ne ki noonu te xam na loolu dinañ ci ñëw danañ koy bàyyi mu nuyoo ba pare rek président maa ngi lay nuyu di la waaw ba Babacar mi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Mhm. waaw di leen baalu àq ci weeru koor gi. Mhm. waaw di leen uh, dalal si jàmm fii ci mhm. Fass. waaw. mu mel ni fii lañ la fekkoon gërëm sa kër fii Fass. <laughs> am na solo président yaakaar naa comme ni ma ko waxee rek euh, aada kere bi mu fi ñëwee euh, di la seet si ci ngirum aada defe naa ne euh, boobu amoon nga lu la naqari par rapport ak xëy na ni nga gisoon affaire yi ak comportement yi ni mu demee woon ak loolu mais ci diggante bi daa mel ni ak soppe ko am na fi. waaw loo gis rek waxtaan da ciy baax. Mhm. te wax daf ciy baax tamit. Mhm. amaana wax yi moo defar. Mhm. waaw moo defar yàqu-yàqu yi. ndax boo amul woon yàqu-yàqu. du ñu gën di wax. bu ñu génn woon di waxtaan du am waxtaanat su mhm. ñu ne waxtaan nañ ba àndaat ñun ñëpp mhm. xam ne ñoo bokk suñu faas mhm. te kenn mënu ko xar ñaar waaye nag dafa fekk rek am na yoon bu fi jaare foog ñu régler yëpp ba pare ndax ñu jëm dafa sori waaw ñu régler ko doog a mën a tegaat si yoon bi voilà après la pluie c'est le beau temps c'est le beau temps comme euh, su ma déggee maanaam bi mbir amee euh, génn bi amoon na mais terewul ko yéen a ngi doon waxtaan waxtaan amee tamit déggoo ngeen ci maanaam benn mbir ba tënku ba tax xale bi mën a dellusiwaat waaw déggoo nañu bi ngeen bëgg yéen déggoon nañu waxtaan nañu ay yoon mhm. waxtaan nañu ak bureau bi mhm. moom démb rek wuyu seewul nañu euh, bureau bi yëpp daje nañu wuyu see nañu démb waxtaan nañu lu man lu ëpp ñaari waxtu mhm. waaw ba réglé waat vraiment lépp lu nga xamante ne métti na nit ñi nit wax nañ ko devant si présence am mu ngi toog donc accepté na aussi lañ ko wax te loolu moo ci am solo ndax nit moom bu juumee wala mu def erreur li ci am solo mooy mu reconnaître erreur am d'abord am jàngat bu mu am ci erreur bi. Mhm. mu maanaam maanaam bu juumee mu mu mu reconnaître erreur am quoi ba yàgg mu am lu mu ci jàngate quoi. Mhm. loolu daal mooy. def na loolu quoi. waaw def na ko nag quand def na loolu. def na ko ndax li nga ko wax yow na ko. Mhm. te xamal nañu ne yoon bi ma jaar ni bi ngeen bi ma bi ba lii daal ma du ngeen ma fa gisati. waaw nit nag koy jàppal engagement am rek ak waxam. ba ba keroog ngay gis mu soppeeku. mu soppeeku. Ah. am na solo mais ci biir soppeeku boobu gis nañ ne fan yi bi coow li bëree ku mel ni tafaa Gueye mhm. gis nañ benn bés mu xëy. Mhm. Euh, woo aada aada mhm. dem kër Tafa Gueye toog ak moom jégalu. Euh, maanaam supporters yi jégalu waa Fass. jégalu tamit ñëpp ñu nga xam ne ay soppeem lañu. image bi nga ko gisee moom ak Moustapha Gueye maanaam loo yëg yow en tant que doomu Fass. waaw bi ma koy doog gis euh, xawoon na ma bett tuuti. Hmm. ndax dama jàppoon xëy na buy jégalu. Mm-hmm. Euh, même bu fa fekkee Tapha Gueye moo ko mm-hmm. war na ànd ak euh, entourage am mm-hmm. muy biirom voilà muy président écurie ànd ak entraîneur am ànd ak euh, lépp luy encadrement am daal waaye nag mu Gueye moom day kenn si ñun te Fass gi ñoo ko bokk waaw ni mu mën a doxalee Fass écurie Fass noonu la amee droit doxal écurie Fass Benno ndax même benn couleur bi la ñuy défendre benn couleur ngeen waaw muy suñu mag ñu koy nuyu au passage da nga jàpp ne bu gisee lu yàqu kon ci ñaari écurie fu ko ci neex am na droit sol dàllam dem defar. mais évidemment waxuma la Fass sax mais beneen écurie bu am problème tey. Mhm. parce que Moussa Wagué c'est sage lamb yi la bokk. Mhm. na lu ne ci lamb. Mhm. kon tey a gis problème bu am ailleurs beneen écurie. mu sol dàllam dem dox lool ba mu sotti mu ñëw nga toog. waaw lool laa gis moom. donc nga gis daal. waaw euh, après nag loolu euh, bon aada. Euh, gisaat nañ ko ci koñ bi tey ñu maanaam ñu ñëw nañ fekk ko ci koñ bi mu saafoonte ak ay supporter am euh, mu mel nii diggante mag supporter am itam daa mel ni léegi rek tax rek am na ci. Uh-huh. waaw loolu moom kontaan nañ ci bu baax baax ndax euh, Fass nag ñoo mel noonu. Mm-hmm. Fass moom dañuy ànd di jàpp. Mm-hmm. di ànd di bàyyi. waaw moo tax maanaam ñi fi nekk ñëpp défi la ñuy doxee. défi waaw donc booy duggante mm-hmm. ñoom. xamal lay wax a ñoom xamal lay def ak ñoom. Mhm. waaw ndax bu ñuy jàpp moom ñëppay ànd jàpp mhm. waaye bu bàyyi di am ñëppay ànd bàyyi waaw léegi nag réglé nañ problème yi amoon yëpp yu sew sewan yëpp li ñu bëggoon ci moom yëpp tey mhm. moo xam yu daaw loon ak yu daaw jéeg yëpp wax nañ ko moom dégg na ko tenir na si euh, considération te loolu moo ci am solo erreur mënta ñàkk si parcours mais nga jàng am si njàngat waaw am si njàngat loolu moo am solo Mhm. te moom def na ko dal. def na loolu waaw def na ko. Euh, am na solo. Mhm. Euh, mais ci biir loolu tamit Tapha Gueye tudd naa ko léegi dinaa si ñëwaat. Mhm. parce que li tax mi ci ñëwaat mooy écurie Fass. ar dama ko laaj. ci interview bi mu seq ak moom. Oh. mu ne ko ndax eh, eh, jëf jooju tafa loolu nga def maanaam maanaam li tafaa gi def noonu. Uh-huh. est-ce que est-ce que maanaam tafaa gi le fait que mu ñëw këram aada jégalu. Uh-huh. ma ne ko tey est-ce que buñ la woo bu la woon ci biir écurie Fass. Uh-huh. wala ñeneen woo la ci biir écurie Fass ndax di nga dem ci écurie Fass. mu ne moom loolu amu ci problème buñ ko woo écurie Fass. pare na pour dem écurie Fass. loolu na ko gis wax jooju aada waaw loolu moom waxu mbër la waxu mbër la aada mbër la. Mm-hmm. mais écurie Fass euh, structure la. Mm-hmm. association la boo xamante ne dafa am ay règlement ak yëpp. Mm-hmm. donc du du ñu téye benn mbër boo xamante ne dafa bëgg jóge fii pour dem feneen. Mm-hmm. ndax yàgg nañu am nag mbër mu jógee Fass Benno dem écurie Fass. dafa fekk xëy na dafa dem mu demee neneen wala wala jógewuñ fa jóg moo tax kenn yëgu ko mais bëri na mbër yu jógee écurie Fass Benno. dem Fass dem écurie Fass. waaw Buluf maa ngi koy nuyu au passage. ah Buluf ci yéen la nekkoon si ñun la nekkoon Pape bu xees si ñun la nekkoon. Pape bu xees buuru tan si ñun la nekkoon. ok euh, mm, Burutaan mm-hmm. bi muy bëree ak Alioune Sèye Junior. Burutaan bu Grand Dakar. bu Grand Dakar. bi muy bëree Alioune sa Junior. Ada Fass moo ko toogal ci mikaay boobu Ada Fass bëreewul. ok ko daan wooyee euh, ci mm-hmm. ko toogal ci mikaay fii Iba Mar. Iba Mar Diop waaw loolu yàggul dara daal. Mm-hmm. Uh-huh. kon maanaam su ma la déggee kon Ada tey bu ñëwoon tey ne la mbay damay dem biir écurie Fass bokk fa uh-huh. léegi. Uh-huh. Abass Ndoye nekk sa nekk sama président. Amadou Kadi Diop nekk sama entraîneur. bu keroog yow da ngay nangu. xam nga dama lay wax ne écurie Fass. waaw mooy université bi loolu yàgg naa leen ko wax. Hmm. Fass Benno benn faculté la ci biir université bi. Hmm. waa man na maa ko tuddee faculté des sciences de la lutte. ok waaw mooy Fass Benno. mooy Fass kon Abass Ndoye li ma mën a doxal écurie Fass. Hmm. noonu la mën a wàcc si terrain bi. ñëw doxal écurie Fass Benno. waaw Moussa Gueye tamit vice versa. ak ñeneen ak ñeneen. ndax euh, du ñu jóg ci bi jël conseil. si ñoom ndax dañu jiitu ci terrain bi. Mhm. waaw ku ci mel ni Bouba Thiaw maa ngi koy nuyu au passage. Bouba dama koy soxla woo ko. laaj ko ay question mu tontu ma. Mhm. avec modestie wax ma li ma war a xam yëpp li ma war a def yëpp. Mhm. waaw ndax kuy laajte moom defe naa waxuma digg doo jum de waaye li ngay juum du bëri. du bëri waaw du bëri. waaw am na solo euh, mais tey aada euh, par rapport comme ci waxu aada la ñuy wax. Mhm. par rapport ak carrière am surtout carrière mhm. moo xam day des mu des mu seen loxo ba tey wala mu dem Fass. parce que mhm. daa mel lépp benn la su ma déggee ni nga waxee. mais actuellement yéen tamit ba daan taxawaay ngeen war a am ci moom ba nga xam ne li ngeen waxante ak moom wala li mu leen wax. Euh, bu ci maanaam bu ko jalgatee. nu ngeen di jëflante ak moom ëllëg. waaw loolu la moom xam Hmm. te règlement moom mooy li ma wax sànq écurie boo gis rek am na règlement boppam. Hmm. waaw tey règlement CNG du ko jox benn hmm. écurie. bu nekk ak sa règlement intérieur. ok waaw écurie boo dem nag muy bu ndaw beex bu mag bi moo si am. waaw yëpp am na réglement intérieur. waaw mais daal li ñu mën a xam te mën koo wax ñëpp mooy aada. ñoo ko encadré ba mu toll fii. di ko mos a bàyyi. dañuy continuer di ko encadré. di ko encadré ak fu mu mën lu mën lu mënti xew. dañu continuer di ko encadré. ndax mi ngi défendre couleuru Fass. Mm-hmm. waaw te ñun Fass moo ñu ñor mm-hmm. amuñu leneen lu dul Fass fii nga ma jëlee nii tey mm-hmm. ci kër gi laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee mosuma fi jóg fii laa ne donc ñun ñuy wër écurie Fass yëpp muy encadrement bi moo nuy war leen Pambo secrétaire euh, trésorier général Ousmane Diouf secrétaire général Adama Soumaré chargé de la communication Matar fay euh, euh, nu mu tudd Jili Jili Dieng Jili Mbay ñun ñëpp wax dëgg yàlla waaw bay nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi extérieur te dëkk Fass ku su mel ni Thian waaw Elo euh, ñu ngi koy nuyu Zakaria ñoom ñëpp vraiment dañuy jàpp ci écurie bi Ablaye Sané xam nga Bas Diop bu Colobane ñoom ñëpp dañuy jàpp si écurie te du tey mhm. waa kon nag wax dëgg yàlla aada am na lu jafe am na lu rëy aussi mhm. encadrement bi mu am mhm. gisuma mbër yu mag yi waxuma mbër de mais mbër yu mag yi gisuma si ñu ñu am encadrement bu toll noonu Hmm. bëri wuñ si fi waaw léegi nag li si des mooy sa encadrement da leen di déglu. mën a jëm kanam. dégluwoo woo leen doo dem léegi nag nit ñi li ñuy gis mooy aada amul encadrement amul staff amul nangam mais boo amul woon li xew nii sax du fi xew. problème bi am nii nii. kon mais dafa am encadrement moo tax. Hmm. moo tax am staff moo tax bu ñu waree bañ dañuy bañ. Hmm. bu ñu ko waree ne déet dañ ko naan déet ba mu xam ne wax nañ ko déet. su dëgëree bopp ñu dëgërël ba mu xam ne dëgëral nañ bopp mm-hmm. waaw mais bu ànd jotee dañuy àndaat di waaw jàppale ko yóbbu ko ba fu mu bëgg a yegg ba fu mu bëgg a yegg waaw dégg naa ko ci waxam ci ci ci laaj yu ma ko laaj tamit mm-hmm. rapport euh, ak carrière am mm-hmm. mu ne moom li ci ginnaaw loolu waxatu ko parce que mhm. loolu pour moom benn ngelaw bu jàll la mhm. muy ndam ya moo am ak victoire yaak coow ya am ak lu ca xew mhm. nee na moom mu ngi door a entamé carrière bu bees parce que te ci ko maam ak jos bi lañ koy xame nee léegi mbër mi mooy ñëw léegi bëre Ada Fass mbër mi mooy xel di ñëw ci làmb wax ko noo ko déggee waaw loolu moom loolu defi la loolu moom bu ma ko déggee damay gën a bëgg ndax keroog dama la wax fii ne la aada bu fekkee vingt la na jàpp na ci cinq la toll kon yeggul fenn ci làmb yegg yeggul ci diggu carrière aada cinq ans la amaguñ ci làmb cinq ans làmb boo ci génnee Covid beex yëpp daanaka motul cinq moom la defaguñ ci làmb yàlla may ko lim ko may aura bi mu ko may kon moom dafa war a xam li mu am lan la xam ni mu koy téye waaw ndax tey euh, yomb na nga am yenn yi euh, succès yomb na mais gérer ko moo jafe. gérer succès moo jafe. waaw donc euh, ci biir loolu maa ngi dégg ngay tudd Zos. jos waaw waaw ma koy jàllewaat yàlla waaw ndax dem naa fa démb si dëj bi dem naa ba kër ga wax dëgg yàlla ndax jos dañu sëq yeneen nag yu dul mm-hmm. dañu xamante avant làmb dañu xamante si yeneen sama place la doon toog mm. Ada Fass mii di ko fa fekk boobu aada mi ngi mi ngi ci place di di def yeneen di liggéey si yeneen ak yeneen xam nga mm-hmm. Mm-hmm. voilà donc bu fa ñëwee fekk fa jos day day ñëw ci jarbaatam bi Kumba maa ngi koy nuyu au passage mhm. nan ko tax sa ndijaay bi doo ko wax mu may ma chance Kumba ne ko yow da nga yabaate yow kii day sa morom ba ko naan doo bàyyi yow yow yow doo xam sa lekk uh-huh. xam nga uh-huh. léegi bu jamono di dox di dox di dox ba ñu mm-hmm. daje mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla yokkute la ci moom yokkute la ndax garab ci kaw lay fekkante mm-hmm. waaw nit da ngay gëm sa bopp waaye boo gëmee sa bopp ba pare da ngay xam sa bopp xam sa bopp mooy nga xam fi ngay teg sa tànk xam ni ngay waxee ni ñuy jëfee ndax li ma koy wax saa su ne rek aada taalibe la te dafa war a sax si taalibe ci loolu lañ ko war a gis waaw ci jëfin ci waxin ci doxin ci yëpp ci taalibe chaque jour leen dégg ko mu naan maa ngi sàdd Cheikh Makumba Fall al misbaax kooku mooy sama sëriñ man. yow mii donc man moom ñoo bokk benn keppaar bu ñu yaroo ci taalibe kon moom war nañ ko xool di gis taalibe ci moom di nuyu nag waa Nuurul Jamal yëpp gannaaw bu ma nuyoo Cheikh Makumba Fall ba pare maa ngi nuyu bépp nurul Jamal mhm. waaw maa ngi nuyu góor ak jigéen. Mhm. am na solo euh, léegi nee na moom bàyyi na almadi moom almadi moom nee na bàyyi na moom yooyu moom daa dépend ah, nee na leen almadi dootuñu na ndax est ce la gis foofu nga yor moto yi guddi oto yi uh-huh. mu ne yooyu bàyyi yooyu moom féete na ginnaaw la wax de xam nga des fois dafay def yëfu xale te aussi dañ ko koy xaw a nangul rek mm-hmm. ndax euh, xale la aussi xale la waaw xale mu ngi doog am vingt cinq ans mm-hmm. donc ku ne xam na vingt cinq ans lan la ci nit boo ci tolloo xam nga dëgg bëgg bëgg ak yëpp mais mhm. foog ngay déglu booy déglu rek doo juum lu bari mhm. booy déglu ñu lay canaliser mhm. et di la digal ngay jëf di la tere ngay bàyyi tant amuloo ko da ngay sonn foog ngay nangu ñu lay wax ndax loolu moom waxi sëriñ bi la du sama wax ku ñuy digal ngay dégg kenn mënul fexe ba doo jëriñu waaye ku ñuy digal te doo doo dégg waaw kenn mënul tax nga jëriñu bu fekkee doo dégg kenn mënul tax nga jëriñu ku dul dégg ndigal ah. kenn mënul tax nga jëriñu kuy dégg ndigal kenn mënul tax ba doo jëriñu waaw kon loolu bu bu ko tegee foofu rek wax dëgg yàlla fi mu war a yàgg dina fa yàgg fi mu war a yàgg mhm, dina fa yàgg daal dina fa yàgg mhm. par rapport ak euh, euh, digganteem ak Balla waaw Balla dañoo may ñoom ñaar daa parce que Balla am na lu ma ci jot a njàmbal tamit nee na mhm. Balla am la da ko doon da koy di ko conseil ak nangam sàngam waaw dafa dafa ñoom ñaar dañu bëggante kenn ku ne dafa estimer moromam. ci sama gis-gis ndax euh, am na jamono sax Balla da koy tooñ ci téléphone yooyu nan ko gaawal màgg ma may la chance. waaw ah. loolu xam nga loolu moom boo xoolee mbër ba wax loolu. waaw dafa fekk nga gis sa bopp ci moom. ci moom waaw te bëri na mbër yuy gis seen bopp ci ci ci xale buy jóg. Hmm. Moustapha Gueye mii tey li muy wax ci Ada Fass Ada Fass mais dafay gis boppam ci Ada. Ah, ah, parce que dafa yore dafa yore njàmbaaru Mbaye Gueye. Hmm. waaw yore technique donc moom moo tax ma ne ko yow kenn mënul yow maanaam moyens yi nga war a am yëpp mhm. pour doon champion am nga ko mhm. encadrement bi nga war a am pour doon champion am nga ko yow yaay réglé am foo tegu teg sa bopp rek mhm. yegg fi nga jëm waa ndax am na lépp maanaam li ci des daal ci moom la dépendre ci moom la des moom mooy yóbbu fu mu bëgg a ci làmb moo fa yóbbu boppam bu la ne dina indi roi de arènes waaw gëmal waa waaw de wax na ko gëmal ne dina la ko fii mais ce que dina ah mais gis nga gis nga gis nga gis nga bon gis nga Modou Lo ay année année année deux mil treize deux mille non pas deux mille treize. deux mille neuf yooyu. deux mille neuf ak gis nga gis nga ni mu meloon noonu photo. waaw waaw. wala ma ne plus loin sax Yékini. waaw waaw waaw Yékini quatre vingt quatorze. waaw bi ko Zallo di daan drapeau chef de l' état. waaw gis nga Yékini nu mu tolloo. waaw waaw. ku ne kii mën na dem ba téye làmb ji lu mat quinze ans si loxoom est que di nga gëm jamono yooyu. garab si kaw lay fekkante mais dafa am dafa am lu mu àndal engagement ak gëm foog nga gëm sa bopp mm-hmm. waaw man na buuma gëm sa bopp rek yam ci dama bëgg nga xam sa bopp xam sa bopp xam kan xam ñan nga àndal jommale sa bopp yenn yi lii kenn waruma si gis mm-hmm. fii kenn waruma fi dégg mm-hmm. waaw mbër dafa am luñ ko xamee moom nee na léegi mbër mbër mbër loolu de la aada mbër lay indi waaw waaw kon nag nañu gëm li mu wax ba ci kanam ñu ko gis leen waaw am na solo président kontaan ci yow uh-huh. looy tàggatoo. waaw di sant waa Fass yëpp. Mm-hmm. waaw di sant na ëxlu làmb yëpp ndax mbir yi bi mu amee tamit. Mm-hmm. Euh, aada ni mu si amee njàngat. Mm-hmm. ñun aussi noonu lañ si amee njàngat. ndax bëri na tey ñoo xamante ne ñu ngi lay woo di la conseiller. di la orienté waat. di la marsawu li fi xew ak yëpp. di nuyu vraiment manager yi Basirou Babou sama xarit maa ngi koy nuyu. ak Mbaye Diagne. di nuyu président manager aussi Bourkhane Wade. waaw di nuyu entraîneur yi. ñoom euh, kii waay. Mbaye Diallo Mbaye Diallo bu Pikine. ñun ñëpp di nuyu nag Ngagne Diagne. Alaaji Ngagne Diagne moom wax dëgg yàlla moom dañu doyloo xam-xamam ci làmb. dëgg la waaw ndax lu bëri wax dëgg yàlla. bu waxee rek damay damay dégg sa bopp man. dëgg lu bëri dañ ko bokk. macha allah mag waaw dañ ko bokk moo tax ma koy sant di ko gërëm. di sant bëgg fàllu bu bu bu bu Zarko bu Grand Yoff. waaw di marché waat Zarko si yëfi xew yëpp aussi. dëgg la voilà di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp. waaw Fass na moom bàyyiwuñ kenn. Mhm. comme ni ma la waxee rek Fass la ñu am. Mhm. moom la ñu moom la ñu xam. Mhm. di sant ASC yi fi nekk yëpp. voilà di sant euh, monsieur le maire aussi. waa di ko sant di ko gërëm. si taxawaay bi ndax bi ngeen di dugalee gis ngeen euh, mbedd bi ni ñu ko def. bien sûr loolu nag comme liggéeyam la aussi <laughs> loxo ma ngi ci. ok waaw dañ koy sant di ko di ko gërëm bu baax a baax. dëgg la waaw di sant euh, ñëpp daal wax dëgg yàlla. waa di sant ñëpp si taxawaay bi. am na solo waaw ndax kenn ku ne dugal na ci loxom kenn ku nekk wax na si